Abdoul Malick Bousso euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors nga bokk nag ci bureau exécutif bu forum civil euh, ginnaaw cent jours yi nga xamante ne def nañ ko ci euh, bopp réew mi muy gouvernement gu yees gi ba tey ñuy xaar ñu def déclaration de patrimoine lan moo waral lu ni mel doon tey ñoo ngi ci délai ba tey waaye ñu ci bëri ñoo ngi xaar ñu fësal lu ni mel. waaw xam nga dafa am loo xamante ne yoon moo ko lal constitution de la république. moo sas président de la république ci article trente sept boo toogee ñu fal la da nga war a def déclaration de mooy ne sama moomeel lii la balaa ngeen may dénk réew mi yoo xamante ne dañ leen dënk ndombal tànk wala ñu dénk leen alalu réew mi wala ñu jox leen ay sañ-sañ ci réew mi c'est d'abord loi 2014 17 2 avril 2014 ci déclaration de patrimoine moo doon saytu seen ay mbir loi boobu nag noddanti nañ ko ci euh, fan yi passé euh, loi deux mille vingt quatre zéro sept neuf février deux mille vingt quatre moo ko noddanti loi boobu dafa sas ñi nga xamante ne dañ leen jox ndombal tànk wala ñu fal leen wala ñu dénk ab koom wala ñu dénk leen loo xamante ne ñoom ñoo am ay sañ-sañ ci réew te loolu duñu toppatoo wala di jëfandi jëfandikoo kopparu réew mi dañ leen sas ñoom it ñu wax seen moomeel ci ay anam yu rafet loolu nag fekkee euh, dañ la fal nga war koo def ndorteel nag que yow bi ñu lay fal da nga ne la jubul woon ci réew mi dama koy jubbanti euh, euh, man damay jubal damay ñoŋal liggéey bu rafet dañuy séntu ci au moins seen fi fekk nga ñoŋal ko mooy que euh, cadre légal bi fi am mu yées yées nga jëmmal ko la ca xamante ne dafa xaw a sooke nga xaw ko nga noddanti ko loolu la ñuy séntu ci ñoom te euh, cent jours nag bëriwul bëri la bëriwul ñu mën a xayma seen liggéey fu mu toll. parce que liñ leen sas mooy dañ leen dégg réew ci diiru juróomi juróomi at mais war nañu mun a xool jublukaay yi fan la jëm te jublukaay bu njëkk mooy lan la yoon sant nga def ko te loolu ñu ngi koy xaarandi ci ñoom ba léegi ala kulli lañ la sas ci déclaration de patrimoine muy président de la république naam def na ko ci campagne électorale bi mais def ko def ci de manière citoyenne la ko yoon sant mooy constitution réew mi da ko ne buñ la fale defal déclaration écrite nga jébbal ko conseil constitutionnel mu siiwal ko ñeneen ñi nag xëy na siiwal bi du seen ay mbir mais loi bi dafa leen sas ne ñoom it ngam dénk nañ leen wala nommé nañ leen ngam fay fal nañ leen wala dénk nañ leen ay pouvoir wala ay sañ-sañ nañu def seen déclaration de patrimoine au niveau de l'OFNAC lof nag saytu ko garde ko denc ko fam fekkee ne buñ koy siiwal te ñoom ñooy euh, laaj yu siiwal ko wala jox autorisation ñu siiwal ko foofu nag ñun dañu yaakaar ñun société civile foofu loi bi xaw na des te dinañu def ay jéego yoo xamante ne peut ñu ñu def comme ni ñu def ay Niger boo defee déclaration de patrimoine nga de lii mooy sama moomeel man mi nga xamante ne mën ngeen dënk mbir mi balaa may dugg ci liggéey bi ngeen ma dénk lii laa moom bu ma génnee lii laa moom loolu lañ ko war a siiwal ba ñëpp xam ne ah mbir mi de ñu dénk suñu ay mbir mu di jënti suñu ay mbir nii la ko yoree parce que bi mu nekkee ca mbir ma la la yoroon ñu ci dugg ñu génn lii la yor la yokkute yi war nañ ko mun a màndargal wala mënuñu ko màndargal ku nekk xam parce que alalu mboolu wala affaire mboolu moo demee noonu boo nee dem dénkal leen ma li ngeen yore ma téyel leen ah ñu nit nañu xam li nga yore loolu lay loolu lay dëgg. waaye ndax OFNAC am na ay moyens ngir mën a vérifier rek déclaration de patrimoine yi. waaw moyens yi sur le plan textuel am nañ ko parce que dañ euh, wax naa la léegi loi bi def déclaration patrimoine mille la woon mais 2024 noddanti nañu loi bi ba nga xamante ne dañu yaatal ñi war a déclarer seen. Euh, am na ñoo xamante ne avant sax dañ doon laaj rek ki nga xamante ne dañ la dénk milliard jëm kaw mais léegi même fekkee ab doole lañ la dénk pouvoir lañ la dénk sañ-sañ lañ dëkk comme procureur de la république ak magistrat bu mel noonu dañuy laaj nga def déclaration de patrimoine loolu ay avancé la euh, ay sanction ngi fii yooyu tamit avant dafa nag amul woon sanction euh, wala sanction yi dépendre woon ci moom wala amul woon efficacité mais léegi loolu yëpp dañu fexe ba euh, dëgëral taxawaayu OFNAC euh, defar ay sanction yu ni may OFNAC ay sañ-sañ la ca des nag mooy xëy na ña koy jëfe euh, personnel bi moyens yi loolu la laaj mais sur le plan des textes moom lu bëre defar nañ ko ci loi yi ba nga xamante ne am nañu sañ-sañ def liggéey bi ñu war a ca des mooy ñu jox leen jumtukaay yi mooy moyens yi nga xamante ne moo leen di may def liggéey bi ñu xaar. ñu adopté ko ci assemblée nationale ñaari fan ci weeru avril atum 2014 ba léegi muy loi bi nga xam te jëm na ci déclaration de patrimoine euh, déclaration googu sax ana lan mooy valeur am. déclaration bi luy valeur am mooy que dañu sas comme ni loo ni ma la ko waxee saax koo xamante ne dañ la dénk ab réew wala dañ la fal takkal la ndombal tànk yorel jox la ay sañ-sañ yi nga xamante ne. sañ-sañ yooyu mun na nekk ci liberté nit ñi mooy nga mun tëj njiit wala tijji ko eh, eh, may ko alal wala xaañ ko alalam loolu euh, danga nga war a am melo boo war a mel pour nit ñi mun a am confiance ci liggéey bi ñu la confié loolu mooy déclaration de patrimoine déclaration de patrimoine dafay assurer bonne gouvernance mooy que li ñu dénk ak ñenn ci ñun pour ñu liggéeyal réew mi ñu liggéey ko ci anam yu rafet tamit dañu de day def intégrité vie publique bi mooy que ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu pour ñu téyel ñu suñu ay bagages euh, yoreel ñu suñu ay gox ak suñu ay gox goxaan ñu dénk leen suñu ab réew ñoom am taxawaay boo xamante ne boobu taxawaay la ñu war a taxawee boo gisee nag euh, déclaration de patrimoine ñu def ko en 2014 ñu toog juróom-ñetti at ñu saytu nag ne na ah la ñu defoon ci déclaration de patrimoine sañ-sañ yi ñu joxoon om nag lan la jur ñu xool ne liggéey bi rafet na rapport yi defar nañ ko mais am na foo xamante ne dafa sooxe parce que am na ñoo xamante ne waroon nañ cee bokk bokkuñu ci am na ñoo xamante ne waroon nañ leen sanctionné sanctionné wuñu leen rapport yi euh, jébbal nañ ko procureur de la république traitement judiciaire ba ca war defuñu ko ah yor na nag ñu war danti la fi nekkoon gen ko taxawal gën ko dëgëral mooy ñu ma la wax la loi deux mille vingt quatre zéro sept ak yeneen beneen loi bi nga xamante ne moom aussi ci février deux mille vingt quatre li ñu ko tëggaat moom mooy modifier fonctionnement ak organisation OFNAC loolu may na leen ay sañ-sañ yu bees may na leen xeetu organisation bu taxaw yaatal na assujetti yi ba nga xamante ne Eh, ña ca war a bokk gën nañu yaatu eh, la ca la ca sooxe mooy eh, ba léegi seen déclaration de patrimoine OFNAC moo koy gérer mais kenn du ko siiwal ñàkk siiwal boobu tamit loolu rek la ñuy commencé bu ñu jàpp ne loolu faiblesse la ci loi bi dinañu liggéey tamit ba nguur gi nga xamante ne moo nekk ñun ñun balaa fi jógee Euh, changé loolu. mais loolee tamit euh, directeurs yi dañ leen ciy woo muy responsable état yi ñoom ñëpp ci lañu bokk. waaw directeur de service yu bëri euh, directeur d' agence comptable public yi ñi nga xamante ne aussi dañu am yenn sañ-sañ yi mooy yenn pouvoir yi ñuy gere ay projet ak ay programme ñi nga xamante ne ñooy président conseil d' administration yenn organes yi entreprise publique yooyu koo xamante rek am nga. Euh, euh, ndombal tànk boo xamante ne dénk nañ la pouvoir wala dénk nañ la ab koppar euh, ci nga bokk yaatuwaay bi yaatu na agent public yi mu yi mu concerné yaatu na loolu moom foofu moom je crois que jéego yu rëy def nañ ko foofu. alors li nga xamante ne nag moo jëm ba tey ci loi boobu lii ndax jotul euh, ñu gën koo mën a appliquer euh, ba lépp mën a jaar yoon. waaw xam nga li ci njëkk mooy que euh, loi bi dafa am lu mu sas OFNAC am lu mu sas organe organe de contrôle lu mu leen njëkk a sas mooy produire ay rapport ci seen liggéey rapport yooyu nañ ko siiwal nañ ko jébbal ñi nga xamante ne ñoo war a a àtte ñi ñu yaakaar ne lañ leen dénk ñu ko yore baaw loolu ala kulli aal ñu jëmbal loolu parce que loolu des la euh, des la boo gisee eh, ñuy xaar euh, rapport euh, inspection générale d'État génn ku ko loolu yëpp dafay wone ne liggéey bi des na ci information publique parce que citoyens yi ñoom ñooy dénkaane seen réew bu ñu ko dénkee nit kooku dafa leen war a liggéeyal en retour dafa am lu ñuy wax redevabilité xamal nit ñi lañ la dénk naka nga ko yore te loolu dafa am solo parce que c'est important loolu moo tax ñu ne ñun euh, naam euh, gouvernement bi bees bi wax na euh, benn loi nañ ci liggéey sur la sur la protection des lanceurs d'alerte d'alerte mooy ñi nga xamante ne fa ñu nekk di liggéey am lu fa xaw ñu war ko mën a siiwal ñu war a mun leen mun a ñu ne waaw balaa ngay siiwal ñu la ñu nar la protéger dañu war a sas nguur gi euh, euh, ci benn loi d'accès à l'information mooy que la ñu yore réew mi la ñuy moñee information la nga xamante ne jóg ci liñ la confier pour nga doxalal ko réew mi information yi ci jógee di ci tukki citoyen si citoyen bi war cee mën a jot mooy loolu loi à l'information loolu dina wàññi tuuma yu bëri dina leer leeral mbir yu bëri te dina gën a njogal euh, li ñuy wax bonne gouvernance et surtout dina euh, dimbale li ñuy wax intégrité vie publique mooy que ñay yëngu ci lang yi nga xamante ne euh, géew gi ñun ñëpp a ko bokk ñu dénk ñenn ñi ñu nekk ci di ci yëngu seen yëngu ak seen li ñuy def mu mun a leer ci bët ñi nga xamante ne ñoom lañ ko séqal mooy ñi leen dénk làng wa Abdoul Malick Bousso jërëjëf may fàttali rek ne da ngaa bokk ci bureau exécutif bu forum civil ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa lay sant di la jërëjëf.